la nangam nit war na mën a yor émission am tey lii may def man war naa cee mën a am tey war naa cee mën am émission war naa mën a sax ibbi école nii may wax yow ber ko sama turandoo noonu la def dafa nekk écurie Waalo di ànd ak écurie Waalo nekk ak ñoom bokk ci lépp en même temps yor école de Balla Gaye moom mu moomal ko boppam tey loolu moo jur lii tay champion bi toog kon nga xam ne sport nit da ci du nekkul benn mbër kese rek nga war a opté pour def ko kuy boo nekkee sa carrière def lépp nag mais am na loo leen war a mën a def. Mhm. Talla Ndiaye waxtaan wi neex na mais Balla tey relation parce que ku wax géejawaay tamit wax politique bi bari na fi relation ak politiciens yi ne géejawaay du ma tudd tur kenn mais dama naan rek quoi. waaw xam nga politiciens yi sax boo mun nga tudd tur parce que tey boo doon wax tey ñaar nit nga fi wax. muy Malick Gakou ak Alioune Sall. ñoo fi nekk leader yoo xamante ne vraiment dañuy politique fii ci géejawaay bokk ci man ñi ma xam. Alioune Sall ñëpp xam nañu suma xarit la dem nañu ba politique booleetuñu dem dikkalante moo ñu boole mu nam ma moo woo ko mu am bis ma dem ci bu amee bis ma dem ci man bu ma bis ñëw ci nekk nit ñëw ñoo xamante ne politique sax ba dem ma mu wuyu ma téléphone wax ak man kaf ak man rek man Malick Gakou tamit c'est la suma mag la mu nekk doomu géejuwaay lu mu nekk dama ciy nekk lu muy def dama ciy def man kenn moom ma man waa géejuwaay ñoom moom ndax ñooy suma baas lu ma am géejuwaay laa ko amee lu ma ñaax géejuwaay laa ko ñàkkee kon nag lépp li nga xamante ne bu ñu demee bay xëccoo géejuwaay ñëpp bëgg ko man dama ciy ànd ak képp ku bëgg géejuwaay ma bëgg géejuwaay mais teewul ñëpp lay sekk ak jàmm politique taxul moom xaalis pour mu leer ndax yàlla moom mooy teral balaa maa gis politiciens yi ak ku mu munti doon nag yàllaa ko def moo tax nag du ma ñëw pour lan xoolee la bëtu xaalis bi may jox walla ma xoolee la oto bi may may déedéet sama waay nga sama xarit nga boo amee bis dama cay dem bu keneen amee bis dama cay dem kenn moom ma waaye ñëpp tamit laa sekk jàmm waaye lu géej waay xewle man jaral na ma sama bakkan lu géej waay bëgg jaral na ma sama bakkan waaw yàgg parce que ku mel ni comme relation bi nga wax ak waa waay yëpp mais dinaa ci tudd ku mel ni guy gi gi seen diggante relation bi nu mu dem nu mu demee kon nan. maanaam comme ni nga comme sportif yi nekk Géejawaay parce que guy gi mbër la ci biir ci Géejawaay yaakaar naa ne. waaw kon ni mu ko nekkee rek noonu la ko Elton nekkee noon la ko Lac de Guiers nekkee noonu la ko keneen ak keneen nekkee sama relation guy gi ñëpp xam ne guy gi fii daaw fi géej. guy gi daawul gëj fii chaque deux jours guy gi mu ngi fii kaf ak man reetaan ak man xam nga saafante ak man boo amee lu muy laajte laajte ma boo amee combat day ñëw ba ci man na ma am naa combat kaay jàppale ma contact wala kaay def lii kaay jàppale ma ci lii lii ma dem jàppale ko ba muy mujjee bëri ne sax c'est la même chose booy naar laa ko ànd ak moom jàppale ko kon toll na ni moom mu dem jàppale ko ci contact ci lépp na ci lépp. ci lépp guy gëm mu doon dugg te ñëw du ma ko wax muy contact jàppale naa ko contact loo xalaat ci àdduna ak loo xalaat sax jàppale naa ko guy loolu moom yàlla def na ko donc loolu sama waay la. Euh, am na keneen tamit koo xam ne dafay faral di wax say wax di rafetlu si muy Sa Kajoor. Mm. waaw kooku moom <laughs> mënuma wax ci moom parce que nit la boo xamante ne vraiment dañoo mbappantandoo. waaw dañoo bokk mbappat bokk géejawaay. di kaf di ree kon ni nga daan dégg Balla Gaye ak du Lo noonu lañ meloon ci géej waaye. ah yéen ñaar boppam da doon rivalité. waaw non rivalité bi mooy kon ñaan kii moo daq bëree kii moo mun bëree ki nangam noonu lañu yàlla def ñu boole ñu. ba suñu premier combat sax maag sax yooyu ñoo waroon bëri. arène waaw. mais yàlla moo dogal tey gis nga yàlla lu mu war a def rek kenn muñ ci dara ba nii bëriwuñu mais nit la boo xamante nit bu simple nit bu bëgg boppam. nit bu bëgg njabootam nit bu respecté ay kilifaam vraiment ñu ngi koy ñaanal yàlla wax dëgg yàlla toujours rek dama koy wax Marème Faye Sall ñu ngi koy sant ci côté boobu di ko gërëm ci côté boobu baax a baax a baax képp kuy mbër dëkk géejawaay bëgg nga ci moom ndax li mu defal saa Kajoor ndax mel ne tey ñun la ko defal ndax loolu jommul kenn muy feebar ku ne la mën a dal ci àdduna jommul kenn saa Kajoor ci mbër ku mu gënul xol bu rafet gënoo ko xol bu rafet loolu moom mun naa koo seede ci moom parce que damaa xam ci moom loolu sama waay la te yàlla na ko yàlla defal jàmm ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. liiru. bi ma sol tey. Ah, pari bi. Ah, ah. moom moo ko jëndal moo ma ko jox kado. mu nekk suma mag. sa digganteeg parce que liiru daal moom man jaaxal na ma ak Balla Gaye liiru Sénégal li foo wax mu ne Balla Gaye Balla xam nga nee nañu xale boo koy lebal. Hmm. da koy lebal lu baax. Lirou Diane dama ne xale mu lebal ma lu baax. loo looy ko ci li ma lebal bi ngay doon xale. ba may nekk xale di ñëw ci école de Balla Gaye mooy ñaari école la yoon asafurla école la ak écurie moom mu nekk écurie waalo man ma nekk école de Balla Gaye nekk fa xale nag en fait gars yi sonaloon ma nag lu ci bari bu yow day xeex ngir man bàyyi leen booy bi nangam nangam sangam yàgg nañ geer ngir man ñu bëri nag dañoo yaakaar ne liiru tey Balla Gaye dafa mel nii moo tax ñu déedéet melul noonu dafa yàggee xeex ngir man mu ñëwee entraînement mu ñëw entraînement booy kaay entraîné kaay toog fii di ma indi ci grand yi may contact ak ñoom est-ce que comprendre nga baax ni la bëgg ma nag bëggal ma boppam barki alxuraani karim soppal ma boppam xale moom liiru jaan bëggul ku ma laal ba yàlla dogal tey ma màgg ci kanamam moom daa fekkee daa xam daa gis daa ràññee xam lépp macha allah donc moo tax man dama ko jox cër cër bi nga xamante ne même bu ma doon def dara liir na ma kaay nga lii bàyyi lii wala def dama koy def ndax cër gi ma jox la man tamit cër bi ma ko jox la daf maa lebal daal ker ma delloo ko lu sedd guy waaw loolu moo tax sama kilifa la suma xarit la ko yéene bi nga gis sànq ba ma toogee foofu moom moom ko jox barki Serigne Touba di ko ñaanal jàmm waaw